mbokki taalibe yi mbokki julit yi ñoo ngi tey ci kër jàmbaari lislaam sëñ Fallou Fall moom Cheikh moo Modou Aminta Fall di kenn ci yoonu murit waaye it di góor yàlla tigi tigi tigi ñoo ngi fii tey Mbàkke ñaari Baye Fall fas yéene waxtaan ak moom ban taxawaay la Baye Fall yi am ci màgg gi ak ban cër dëgg-dëgg la suñu maam di Cheikh Ibrahima Fall Balu Mouridina am ci yoonu murit sëriñ bi Fall ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu kon buur ñaan la sëñ ñoo ngi leen nuyu yéen waa internet bu senegal su tur nag sëñ sa Jëm Fall xëy na Baye Fall fi ngeen ñëw nag mooy ko sëñ Modou Aminta nekk fa jëwriñam ñu nekk ak taalibe yi kon bis bii bis sëñ Tuubaa la boo xam ni moo santaane woon nañ ma yàlla sama borom ndax li ko yàlla defal xeeb na ci boppam bëggoon na jullit la ko sant la yàlla boromam cant gi nag la ma mooy tàmbalee ginaar. du ci gëléem lu ci waaye man na ko ci def lu ma yàlla sama borom te sëñ Tuubaa ma amul tànk ginnaaw tànk kanam laam loo ci def ren bu demee yéen koy gën a man te waxoon na ci lamiñ boobu ma ne lu mu waaye lu mu waaye yéene seebu muy lu baax waaye lu mu waaye yéene dana la dal te lu mu waaye lewal dana la ko fay te ku ne xam ne am na ko fay kon nag bis bii nag noo ngi soñu suñu bopp di soñu jullit yeeg murid yëpp ci woo ñëpp itam li muy gàtt gàtt gàtt koo man na si teew alal yàlla te alal yàlla su koy jaay lu ñuy jaay nañu jënd ñoo ko moom jënd jënd gi nag mooy da ñëw teew jëf boole ci waaye waxe waxe kese du ci may kenn dara yoonu yoonu jëf la kon nan fas yéene fatiku baax ay taalibe sax ci ak jub wéy ci ndigal am yar ak teggin te wat ni ko ak dooñ day dimbalante mën nañu xam taxawaayu bay Fall yi ci màggal gi ndax gis nañu mbooloo mi ku ci nekk yaa ngi jéem ci sa ñax ak sa jëm xam nañu ni que li ñuy teg ca loxo ci maam ci loxo Cheikh bi da nga koy mu teg ko ci loxol Cheikhul Khadim taalibe yi taalibe yi seen jëf ci màggal gi. taalibe yi mu seen jëf moom mu ngi seen bëgg ak seen pastéef gannaaw bu ñu déggee ndigal seen tubaab ba noppi kenn ko da nga am yéene yow doo nga def ko moo waral ñu ñëwee nii kenn ko ne bëggoo bàyyee sa morom liggéey ba li ñu def itam nañ ko lool ku joxoon fukki gëléem itam mbaa nga milliard itam xem ko ndax sëñ Tuubaa jaral nañu ko te suñu lépp ci lu moom lay jëm ñoom ay Baay Faal moom mooy ko wax ne ku bàyyi lépp lu bon ne ci lépp lu baax ànd ak sëñ Tuubaa Sëriñ Faal fas yéene lu ñu digaloon def ko lu ñu taroon bàyyi ko loolu moo di ak Baay Faal waaw. gi daal kon ànd ngeen ci taalibe yi ànd ak murit yi ñu bëggoon xam sëñ bi kañ la fi bàyyi ko dem ziar ji ki nga xam mooy xalifa de des mourides. waaw taalibe yi moom ànd na ñoom waaye rek ay murit yi la àndal murit yi taalibe mooy talaba mooy kuy rek ñëpp ay tal ay talaba taalibe lañ waaye murit nag mooy ñii ay murit lañ àndal murit mooy koo xam ne day dëggal ca ne lu ko digal mu def ko lu ko tere mu bàyyi ko kooku mooy murit ñii ay murit lañ yoo xam ne sëñ bi lañ seen bopp dañoo jaayante bu leen sëñ bi bu leen dellu duñ dellooti ànd gi maanaam ñoom siyaare ji itam ñu màggal ko bu jeexee lañu doo ko siyaare si sëñ ca jëm waaye li li koy dawal li nga xam ne moo fay dawlu muy nag yi màggal gi moom dañu dañu jiitu ji waaw suñu màggalee ba yooyu mbooloo mi nag ànd ak njaboot gi dem siyaare ji ko nag waaw. jërëjëf Fall jërëjëf Fall.